jaa jëf mbokki téléspectateur u Equivox TV ak képp ki nga xamante ni amateur u làmb nga ñu ngi leen di nuyu di leen euh, jaajëfal ah, comme saa su ne di leen dalal jàmm ci suñu journal de l'arène ma ci ànd toujours ak euh, kii di l'incontournable Babacar Babacar nuyu naa la ziar naa la. maa ngi lay sox fay soxna Olimata Seck di leen nuyu di la ziar di nuyu téléspectateur Equivox TV yépp mhm. di nuyu itam comme ni nga ko waxee amateuru làmb yi mhm. encore une fa parce que ñoom budul ñoom mhm. mbir yi di sorte parce que ñoom ñooy jënd paas yi di seetaan kon fu ci waay nekk rek ñu lay ziar waaw di la ñaanal mais bon comme ni nga ko rek ah dinaa la kan nangu parce que yaa may yaa ma attribué boobu tour l'incontournable bañ naa ko nag parce que manub taalibi laa mais bon alhamdulilah parce que yow moom mhm. borom baax nga daal borom xol ba naagis nga macha allah kon <laughs> mbokk mbokki amateurs yi ñu dem seetaan yi revue des titres te asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 24 mars 2021 dañ ñëw giin ci likaay suñu lamb la ñuy xëy dooreeti ko yëglikaay bi di suñu lamb tey xëtam mu njëkk lëm ca xëy fesalati maanaam ay ñeenti mbër yoo xam ne daal soo bëggee dégg dëgg moom am na rendez boo xam ne ñu ngi leen koy waajal ngir ñu fas yéenee daje nag daal di gisee bokk na ci Balla gay numéro de ak Bombardier Moussa Ndoye ak ka nga xam ne nii moo di Garga Mbossé waaye dañu jëm de Forza tamit ak Pakala dañ cay bokk loolu kañ lay doon yëglikaay bi suñu lamb daal moo nu xëy xamal ne la 4 ca bis ba nga xam ne ce la Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 war a bëre ca la Gaston Mbengue convoqué mbër yi nga xam ne daal daf leen a tëgg ci saison ren bi ngir nag fas leen leen présenté publicu làmb yëpp ñëpp gis na noo leen àddina gis leen lii la lu yëglikaay bi xëy tey xamal moo tax daal la 4 avril moom soo bëggee dégg-dëgg fa nga xam ne moo di arène nationale moom nar naa xat ba yegg ci lool lool sunu lamb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu le 4 avril jooju nag balaa nu caa yegg moom mbër yu ko war a séq war a wàcc ci géew ba dóorante muy ëmma ak lak boo bëggee dégg-dëgg yëglikaay bi nee na la nga xam ne moo di triplex maanaam daal loo xam ne ab télévision moo koy def muy 2STV ak ña xam ne ñoom ñoo di ñaari mbër ya yëglikaay bi ne loolu nag kale nañ ko samedi ji nu jëm le 27 mars maanaam maanaam loolu mooy lan ëmma seen mbaaw lay toog ca këram Lac de Guiers numéro 2 toog fa nga xam ne moom moo di géejawaay ca këram mu mel ni ki moom Lac mook Malick Thiandoum ñooy feggoo kii di Eumeu seen mook moo Modou mbay ñooy feggoo Bécaye mbay nag mooy nekk maître de cérémonie ba moom mooy nekk ca diggu 2STV maanaam daal mbër yi di wax àddina bépp di leen seetaan maanaam question yi di jib loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey xamal ñu ko ci bis boobu ñeneen ñoo xam ne ni moom télé ba ñuy dem léegi leer na nañ comme dañ doon wax naan xamuñu bii la wala bële la sunu lamb nag léegi bi mu doon maa leen koy wax mu ñu ne ko mooy ban mu ne mooy seen muy diggante Modou Lo ak Ama Balde yëglikaay ba daal xëy na ñu xam ne soo bëggee dégg dëgg moom ñaari mbër yii moom seenub daje bu jëkk di war a am le 6 avril bii nu jëm daal ku yebu xaar nàmm say bët tey ñaan yàlla fekke ko te tal ko ndax nag jàkkaarloo bu njëkk ci ñoom ñaar li réew mi doon xaar dana am de fa muy amee yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy xamal fa muy amee dana doo amee fenn fudul ca seen TV maanaam daal fa la Modou ak Ama fas yéenee daje booba combat nag moom mooy combat royal ba keneen koo xam ne nii moom génnoon na làmb ji ndax ay at yu ko dab mel ni fi mu nekk nii daal dañuy ruumandaat at yoo xam ne nii maanaam yaay xool ba mu neex la nga bàyyi mel ni ki nag baa booy loola moom nar na caa profito wala mu bëgg caa profito moo tax daal mu ngay xaar maanaam ay mbër yoo xam ne bëgg na bëre ak ñoom bu fekkente ne loolu la ñuy wax am na bokk na ca ka nga xam ne moo di Gris Bordeaux mam fi daanoon stade Léopold Senghor ak ama neex nga xam ne xale la boo xam ne mu nga ca tëngéej di mbër mu mel ni ki daal loolu moom nekk nii yëglikaay ba xëy na wax ñu ko te itam sunu làmb mu ngi xam ne daal kii di Gaston Mbengue loo ci mën a dégg daa mel ni bëgg na diggante baa booy ak ka nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey dina wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii wala meneen boo mbër moo xam ne ni moom Gaston Mbengue da ko bëgg a tëgg te combat bu mujjul sotti muy Garga Mbossé li fi nekk nag daa mel ni yëglikaay bi ñëw na ci tey mooy boo bëggee dégg-dégg diggante Garga Mbossé ak Yékini Junior daa mel ni fi mu nekk ni daal ah daa mel ni mooy combat bi tàbbi de wala boog mooy bi ñor te itam daa mel ni ku ko tëgg daal loo ci mën a dégg moom ginnaaw da nga am combat bu neex ginnaaw Garga saacis rëcc na ko daa mel ni fi mu nekk nii moom la fa des ñu war koo saaf naar du kenn ku dul diggante ma ka nga xam ne moom moo di Yékini Junior ma nga xam ne moo nekk fa nga xam ne moo di ca Grand Médine beneen xale boo xam ne ni moom mu nga ca école de li Samba jaw muy booy jaxaaw moom it dam daal la mu xëy xamle ne na daal daan Tigre Senior continuer ab yéegam ne na lii la fas yéene def waaye jàppul ci xalaatam walam xelam daal ne Tigre Senior war na koo mën a téye Jax moom ba tey mu nga continuer di def bilan ba nga xam ne moom la génne ci mbappat mi mu tegoon dimanche ji nu génne ak la ca yàqu ci ay dégâts yoo xam ne jàpp nañ na ci ay matériels yàq yu mel ni ki noonu boo xoolee daal moo tax ñàkk na ca lu xaalis bu baree baree bare boo xam ne toll na ci deux millions quatre cent yu tegal yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy cay ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee record la ñuy dem record nag moom buñ fa demee beneen combat boo xam ne nii taxaw na te war koo bëri muy diggante Tapha Tine ak Boy Niang yëglikaay bi daal xëy nañu wan Tapha Tine moom record ne Tapha daal fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg dëgg daal ngir nag la 4 avril ji Eumeu Sène ak Lac de war a bëre daa mel daal loo ci mën a dégg teg na ci ñoom pression ñaari mbër yooyu ndax Tapha Tine yàgg naa bëre ci bis yu mel nekki noonu te itam daa mel ni mës na caa jële lu neex Bira Sène tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom ak itam na nga xam ne noonu la jaxase mbir yi wala boog na mu doxale ci ay mbir yoo xam ne daal jëm na ci làmb ji yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax lit ba tamit yëglikaay ba fàttewu ko de wan nanu xam ne moom mooy Anta Samb di ak gaynde gu jigéen goo xam ne daal daa mel ni fenn seen regroupement mu soo bëggee dégg-dëgg alternate jiinu jëm daal ca la fa nag commencé record moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu waaye li may ñaan daal mooy fi mu nekk nii moom yal na corona bi dem jàmm gën a am ci àddina bi rawatina Sénégal ndax nag loo ci mën a dégg gomis lamb ji fi mu nekk nii daa mel ni jax dëgg dëgg dëgg def na ko ndax li ko waral mooy yaa ngay dégg Ama Baldé Modou Lô di dégg Balla Gaye numéro 2 Bombardier Forza pakala Sa Thiès Moussa Ndoye tey doo ca yem de ak yeneen combat yoo xam ne Mama Lamine Garga numéro 2 yaa ngi koy dégg Franc Tyson 2 yaa ngay dégg général Malika ak Fils de Balla yaa ngay dégg Gris 2 Abdou Diouf yaa ngay dégg ay combat yoo xam ne fi mu nekk nii daal bés toogoon di ko wax maanaam tey doo ko mën a yeggale Quench ak double moteur tamit yaa ngi koy dégg soq gàmmu géey muy ay bés yoo xam ne yu doya doy waar la yoo xam ne yu fas yéenee ñëw la te nag yemuñu ca ndax Siteu nekk ni waa làmb ñu ngi koy xaar mu mel ni kon daal làmb ji fi nekk nii jax na te itam daa fas yéenee jax moo tax daal ñun jàmm rek la ñuy ñaan fi mu nekk nii na nooy daal nepp nepp nepp nepp na nooy ba mel ne xaal wala mu nooy boog ba mel ni pataas bu nu baxal yow mii di gomis ngir jàmm am ñu mën a bëre Sénégal jëm kanam ndax nag làmb loo ci mën a dégg cosaani réew mi la moo tax nan ko fonk waaye daal lu la waaye mën a wax moom le 4 avril wala 4 million fallu Ndiaye ñu ne déet ne waay bët set jak si ñëwati ñu ne déet ne waay Fallou Ndiaye ne ne le 10 avril juróomi million lay indi kon fi mu nekk nii daal gomis booy boo nam ma say te mën a waaxu mën a daw te mën a film te xam ne man moom bu nu yàlla mayetal ak fekk rek ah lii laa doon ñaan yàlla te yëpp moom lañ doon ñaan jaajëfal bu baax a baax kii di Babacar comme j'ai l'habitude de le dire ah c'est l'incontournable Babacar donc euh, tey moom dañuy euh, daal di ubbiwaat rek ak sunu làmb comme ni ñu koy faral di defee saa su ne sunu làmb tey jii mu def euh, à la une Gaston présente ses affiches le 4 avril diggante kii di Balla Gaye ak Bombardier kii di Sa Thiès Moussa Pakala ak Forza Babacar maanaam Gaston Berger dafa pré dina présenter affiche yooyu de mbër ci bésu 4 avril. xam naa euh, loolu dina neex loolu waaye man dama lay laaj. Mm. Oulimata mm. kañ ngay bàyyi wax Gaston Berger Gaston Berger kañ nga koy bàyyi. di nga ko bàyyi ah da nga koo taam amul problème <laughs> ndax Gaston Mbengue ba yaakaar naa borom xam-xam la woon moom lañ tuddee université ba ca Ndar waaw suñu papa Gaston Mbengue moom xam naa suñu père la loolu voilà mhm. loolu moom defe naa ne defe naa yàgg na am si làmb bis bu mag la tëgg pour le 4 avril mhm. defe naa tey bu tëggee bis bu mag bu toll ne monsieur nag Lac de Guiers pour le 4 tamit nekk bis bu mag ci Sénégal mhm. parce que mooy suñu bésu indépendance comme li ñu tubaab yi xamal yaa ngi dégg tey nag bu ñu toogee ba woo mu tëgg ci bis bu tool noonu jour journée bu tool noonu mu woo mbër yoo xam ne daf leen tëgg muy ay affiche yu mag a mag a mag ndax ndax naa Balla Gaye Bombardier affiche mënu ko romb yaa ngi dégg Sa Thiès ak Moussa tamit loola waaye mën wax tamit affiche bu neex la ndax li tax mooy ku yàgg bëgg a bëre ak ki nga xam ne moom lañ ko jox tey muy Moussa Ndoye ba yàlla def mu taxaw Forza Pakala tamit affiche bu neex la ndax dañoo bëre woon bëre bu metti ki xam ne moom mooy Forza am ndam euh, Pakala am ndam kon tey bu demee ba toogaat bis tëgg combat yooyu bëgg leen a présenter bésu 4 avril kon moo lay wan ne daal la 4 avril bu soobee suñu borom fi mu nekk nii daal li jara ñaan mooy wér fekke te tal te am kàttan yàlla nañ ko yàlla defal ndax xam naa ne moom incha allah rek bu ñu fi yàlla bàyyee moom la 4 avril dana mel ne tuq su bën sañ bëri xaw ma nag fu ñu koy fore ji la xadul bés boobu ba bés boobu incha allah Babacar mm-hmm. kii euh, di lëg euh, lac de guerre de Massène euh, pour 4 avril tamit nee nañ le quotidien nee nañ ni dina def benn triplex triplex nag mooy le fait que mm-hmm. kii di Bécaye Mbaye noonu la waaw moom dina nekk ca télé ba mm-hmm. yónni kii di euh, Modou mbay mu nekk ak euh, Eumeu Sène ca fa mu toog ca place am mhm. kii di Malick Thiandoum tamit mu nekk euh, ca wetu Lac de Guiers 2 ñoom ñett ñuy jokkoo ci télévision bi waaw loolu lañ naan triplex defe naa ne ci tubaab su ma ko déggee ci mhm. wàllum audiovisuel muy loo xam ne tamit lu am amam solo la loolu moo lay wan mhm. man li ma si njëkk a rafet lu la fait que rek tey ñu dem ba benn doomu sénégalais mën a ubbi télévision ba mu mën a def couvrir lu toll noonu te loolu bu ñu ko waxee moom mooy suñu papa Alaaji Njaay mm-hmm. ñu koy nuyu di ko jaajëfal di wax ne wax dëgg yàlla wàllum audiovisuel tey Sénégal bay na ci waaram mm-hmm. bay na ci waaram parce que loolu moo tax lu mel nii war a man a am mm-hmm. ba ñu wóolu ko di ko jox lu mel nii yaa ngi dégg di nuyu doomam ela euh, ki nga xam ne moom mooy Abdul ak suma soppe bi nga xam ne moom fu sama daf may tooñ chaque jour ah sala maa sala Ndiaye di wax ne loolu lu nar neex lay doon insha allah rabbi yàlla nañ ko fekkete tal ko ndax defe naa ne ki nga xam ne ni moom moo di Euh, euh, Malick Thiandou Eumeu Sène nekk Mbaaw laa nga Modou Mbaye Père Bekaay ne ci digg bi nekk biir 2STV di leen xaajale ah moo tax daal kon ku yebu daal namm sëy ni ma koy waxee rek xaar 2STV pour euh, samedi le 27 incha allah da nga seetaan lu neex. incha allah incha allah. Babacar Modou ak Ama Baldé lancement du choc royal. Mhm. Luc Nicolaï choisit la Sen TV pour le jàkkaarloo du 6 avril ñu ngi doon laam-laame ñi naan télé bi laam bee. Mhm. finalement. waaw finalement euh, Sen TV la ah defe naa ne tool loolu tamit ci début bi sax boo xoolee xawoon nañu amoon nañ xalaat boobu ñun amoon nañ xalaatu ko ni 2TV lay Sen TV lay doon parce que tamit lig moom comme li ma lay wax rek moom comme li ko suñu papa Bécaye Mbaye tudde woon c'est le c'est l'homme des grands événements loolu la ko yàlla defal mu nekk tamit le promoteur du continent comme ni ñu koy waxee parce que li tax mooy ni muy tëggay événement dafay doy waar Luc Nicolaï loolu moom yàlla defal na ko ko mu man ko mun nekk ku mën événementiel yaakaar naa kon jàkkaarloo nag boo xam ne la tey sénégalais yëpp fi mu nekk nii dañ ko xiif maanaam dañ koy yàqamti moo doog ama yu seq plateau war a wax maanaam lan la ñuy waxante mhm. lu ñuy tontonte lu ñuy defante lu ñuy diggoonte ndax sañ-sañ bi ama am mhm. yaa ngi dégg di ko doxe si làmb ak muudu ku ko gis ak noonu mu force tranquille boobu mu amee mhm. muy ñaari studio xam ne dafa différent mais ñaar ñoo xam dafa am fu ñu jaaruñ si làmb tey defe naa bu ñu toogee nag ba war a jàkkaarloo ñu xam ne léegi béy wéy muus bëri day am ah kon daal tamit nama la na lu doy waar ku yebu waaj pour le 6 avril rek te <laughs> seetaan lu doy waar rek noonu waaw <laughs> Babacar mu mel ni fan yee ci ginnaaw euh, am na lu jotoon a génn tamit ci même quotidien bi di sunu làmb mhm. ñu doon euh, wax ne euh, âge retraite u làmb mi ñu ko yemale ci 45 ans mhm. waaye kii di Baboy dafa mel ni dafa bëgg ñëwaat ñu ne moom il est apte revenir en compétition profession à ci loolu man daal li ma xam mooy doon nañ fi wax naan doon xam nga 45 ans la ñu waxoon ñu dem ba benn moment ñu déggaat ci ay wax que ni mm-hmm. léegi dañ koy sax def. dafa su ma jumul ci destive sax lañ toogoon mm-hmm. bés boobu mm-hmm. mooy bi ñuy présenté Lac de Guiers seen Eumeu Sène euh, ak ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye dégg nañ fa waxu kay waxu kani léegi dañuy bàyyi affaire yi léegi amatul naan ret retet bi fii lay yem ak faa lay ba tax ñu xalaat ñoom baaboo yëg ñooñu jël si ndax moom bi muy bàyyi làmb dafa génn ak ndam lu rëy bàyyi ma joon la daan ñëpp jàpp ne Baboy at bi ñu ko bàyyee loolu làmb maanaam mu ngi yoon ak kàttanam mais nag li am solo mooy xawma bàyyi wala wala ñàkk a bàyyi mais sport individuel moom mhm. yaa ngi dégg mhm. dafa naan ku ci ne mhm. boo demee ba yëgatoo sa bopp. li mhm. nga xam ne yow mii mënatoo ko. ndax nag làmb du am du ay caaxaan. entraînement la laaj. te bu ngeen di bëri da di dóorante te songo la laaj. Mhm. moo tax nag ku ci nekk ku ne ah looy def na ko xam boo abtul bu ci dugg. waaw apt nag aptitude nag balaa la ko médecin di wax yow sa bopp yaa koy njëkk a sa bopp ndax am na loo xam ne nag mhm. gént géntug nit kenn mënu ko netlil borom borom a ko mën a netlil boppam boo boo aptee yow yaay njëkk a xam balaa ngay dem hôpitaux yi xam ne yow mi apte naa pour bëree yaa ngi dégg làmb nag wax dëgg yàlla def na ci loo xam ne moom baaboy mhm. mënatu cee def lim ci defoon c'est impossible fi mu nekk nii parce que li tax mooy même bu fekkente ne ñëw na bëriwaat tey tam tey tamit baaboo yi ma nga xam ne moom la ñu xamoon ci année 2000 yi fukk ba mu amee woon nekk jeune ak na mu doon dégagé woo noonu loolu ak léegi moom c'est impossible mënatul nekk lu am njëriñ la en tout cas euh, dañuy daal di ñëw rek ci drapeau bu chef de l'état bi nga xamante ni ñu ngi koy euh, amal fële ca Kaolack mhm. pour le 28 le 29 ak le 30 mai waaw insha allah rabi yàlla nañ ko fekkee drapeau chef de l'état ulimata soo ko déggee mhm. maanaam bu amee lépp luy làmb mhm. dañ koy arrêté Mm-hmm. loolu rek la ñuy bëre ci ñetti fan yooyu mm-hmm. maanaam raison yi ku ne da ngay am sa équipe Dakar day am équipe am mm-hmm. Kaolack Thiès Diourbel ñëpp ñëw après nag ñu defal leen équipe bu ne day am cinq litres ñu def ay compétition teg coupe bi ak li ak gagnant yëpp maanaam ku ko jël gagné ko moom la ñuy tuddee drapeau chef de l'état bi ñu koy mujj organiser nag région de dakaar moo ko jëloon kon insha allahu rabbi la 30 mai ku yebu xaar ko ndax daaw amul kon Mhm, waaw Yékini Junior wala waaw Garga Mbossé defe naa la foofu laa laa gis fële de mook mook mook mook Yékini Junior ah. dañuy coupé kay. <laughs> parce que def naa la nii ba pare est bindoo ko est bindoo woon ko. bii <laughs> la waaw. ba bii rek laa la waxoon moom ngay jël fii après nga kii. dama doon hésiter entre fii wala fii. kii baa booy la ñëw nga ci moom ci bitti ba pare. ayca ay wax donc euh, suñu dernier élément wu euh, quotidien suñu làmb muy mm-hmm. euh, diggante Garga ak Yekini Junior ñu ne nag après avoir tout raté Sa Thiès hmm, mm-hmm. le combat a hmm, baaxul de après avoir tout Sa Thiès Garga Yekini ah, ok maanaam moom combat bi lañ ko bëggaloon léegi bee ci kay ci na ko moo tax nag yëglikaay yi ñëw le combat tombe à maanaam diggante ma ngi Junior daal dama léegi ñëw na ci moment bu baax bi voilà dañuy daal di donc ñëw rek ci suñu dernier élément bu suñu quotidien euh, suñu làmb mm-hmm. après avoir tout raté Sa Thiès Garga Yekini Junior la combat qui tombe à dafa mel ni Babacar diggante euh, Garga ak kii di Yekini Junior nee nañ daal ni mooy combat bi nga xam ni fi mu dalee daal dafa baax daal. waaw parce que euh, li tax loolu yëglikaay bi xëy tey samp boobu laaj wala mu indi loolu mooy. Mm-hmm. ku ne xam na ne diggante Garga ak Sa ñëpp a ko doon wax bañ na combat bi taxaw naagu taxaw ay promoteur déclaré wu. Mhm. far liñ ci mujjee amee mooy combat mujjul taxaw. Mhm. ba gar euh, Sa Thiès dem jëli Moussa Ndoye. Mhm. tey defe naa nag yëglikaay bu xalaatee ne wala mu ñëw xam ne nag kon léegi moment bu baax bi ñëw na ngir Garga war a jàkkaarloo Yékini Senior defe naa loolu kenn du ko weddi. te itam ñoom ñaar nag dañoo war a bëre Garga Mbossé. ak Yékini Senior combat mënu ko dàq parce que li tax mooy ku jégga ca nar am rivalité ba ca nar am ndax ku ne xam ne ne Parcelles ak Grand Médine diggante bi sorantewul parce que ñoo dëkk. yaa ngi dégg te defe naa boobu combat ku ko tëgg combat du ko gën dama naan sax moo ëpp Sa Thiès ak euh, Garga enjeu maanaam Yékini Senior ak ak Garga mhm. moo ëpp fukki yoon ak juróom mhm. enjeu wu mhm. Sa Thiès ak Garga loolu moom maa la ko wax dëgg la dëgg la Babacar euh, après avoir lutté et gagné le 4 avril 2015 Tapha Tine met la pression sur Eumeu et Lac 2 waaw maanaam kon teg na leen pression ci ñu war a ku ci ne war a def fagaru pour war a gagné bisu la 4 avril ah waaw daal nañ ko fekkee tal ko rek parce que xam ne la 4 avril moom li ma la waxoon fii rek bés bu mag la ci làmb moo tax ñu tëgg ci ay mbër yu mag ñu fas yéenee bëri kon xanaa ku ci ne da nga bàyyi xel ci tafaatin mi leen teg pression ba tax bis ba ñu jéem a seet ku koy gañ si ñoom. dëgg la loolu nag ñu ngi ko amee. ci euh, suñu journal le record. donc euh, dañuy daal di rek euh, continuer ba tey mhm. ak le record. Mhm. ñu ne lutte simple lutte simple nouvelle clé de répartition des mises kii di Bira Sène mooy président bu CNG. Mhm. moom nag nee na record nee na Bira Sène et si et compagnie chamboule tout CIE mooy compagnie. di maanaam. lépp jaxasoo jaxasoo na jaxasoo day na jaxasoo ci ci ci ci lu baax rek mais jaxasoo ci lu baaxul daal la ñuy bañ waaw ndax biraam moom buñ sañoon comme dañ ko dénk te muy ku bees yore di doxal mm. donte yàgg na si làmb yàgg doxal ah ñu ngi ñaan yàlla daal lu mu lu mu si mën moom muy li simple baax frappe baax léppi làmb daal mm-hmm. yàlla na lépp teg ci yoon ba mu def li nga xam ne lu raw li Alioune Sarr defoon la ñun moom loolu lañ koy loolu lañ koy ñaanal et tamit maa ngi def ci benn moom benn témoignage sax ndax keroog gis naa ko teeree gaal gi wax dëgg yàlla mhm. bu ko neexoon mu aju bureau ne man maay président nangam sangam duma lamb yu mag laay ñëw mais keroog sol na dàllam ñëw ci ak gaal gi ak coow la fa amoon ak metti jafe-jafe ya mhm. mu bokk nit ñi kon tooy moom te maanaam lii li ma loolu nag li ma ciy jàngate ulimata lenn la maanaam la ma waxoon rek laay wax si kilifa yi boo jiite ay mbir mhm. da ngay jege ña nga jiite parce que moo lay may yow nga xamal sa bopp balaa ulimata ñëw di la conseil man laa wax sax lu bokkul ak fa ne mhm. yow boo gisalee sa bopp li nga teg sa bët bokkul ak li ñu la nettali déedéet dañuy daal di xuus ba tey ci le record cette fois ci ak euh, lutte olympique ci loolu sax la ñuy jeexale mhm. je crois Babacar mhm. donc euh, war a xewee ca Tunisie Lyon et Lyon en regroupement depuis lundi mu mel ni euh, jigéen ñee combat jigéen ñee góor ñi ñëpp daal waaw mu mel ni buñ ne lion lion moom mooy lion yu góor yi ak lion yu jigéen yi maanaam gaynde yu góor yi yu jigéen yi waaye ñëpp actuellement ñu ngi nekk un regroupement pour di waajal championnat yi nga xam a am ci ah, ngi leen si ñaanal nag regroupement boobu yàlla nañ ci génn ak a lu leen di mën a yóbbu ci Jeux olympiques yu mel nekki noonu bañ ñu ay médaille d'or parce que loolu moom lañ leen di ñaanal ñu wax ñu ñëpp ak ña fa nekk ñëpp ak nekk ni tamit ñoom caaka fay parce que tamit xam rek ñoom drapeau Sénégal la ñuy défendre la. war na encore une fois non ah mais. Oulimata xam nga ne ay jigéen kay. takku ba dëgër di défendre seen réew li ñuy waxaat état bi rek dañ leen di gën a soññ ci ñu jàppale suñu athlètes yi suñu sportif yi waxuma sax ay mbër mais athlètes yi ci boppam képp koo xam ne da ngay gàddu couleur national di xeexi mhm. moo xamab soldaar nga moo xamab loo mën a doon mais yaa ngi compétir pour Sénégal rek état bi war na li gën di pousser di la may doole dalal sa xel gën na di jox gëdd parce que tamit loolu dina may nit ki doole ba nga xam ne bu nekkee xel bu demee xel bi dina gën a dal quoi mhm. dëgg la donc euh, voilà moo nekkoon euh, suñu dernier message bi ñuy lancé rek à l'état au mhm. gouvernement mhm. ñu gën leen jox seen gëdd bu baax a baax ndax macha allah ay citoyens lañ te euh, ñu ngi jëmal kanam lii di sport bu Sénégal bien sûr macha allah Babacar si loolu rek la ñuy daal di jeexale ah suñu JDA tey suñu journal de leen jaajëfal bu baax a baax di euh, nuyu suñu caméraman bi di Gomis. Euh, di mhm. nuyu Modou Khoule également euh, kii di Habib di suñu réalisateur ak mhm. Seynabou Babou. Mhm. maa ngi lay nuyu yow tamit di la ñaanal bu baax a baax yow Babacar. ndax yow de boo ma ñaanalee Amine donc laa ci mën a wax parce que macha allah. Ah, yàlla moom catuwuma la def na lim la war a def yàlla yàlla sàmm la rek te aar la te musal la ci cat ak làmmeñ yaa ngi dégg <laughs> loolu rek laa la ñaanal saa su ne di ñaanal képp ku nga xam ne yaa ngi ñuy suivre foo mën a nekk rek maa ngi lay bëggee mm-hmm. su ma soppe yëpp yëpp yëpp yëpp maa leen di bëggee ñoom Tafa Mbeng mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax fàllu du ma ko <laughs> euh, euh, Cheikh Bass tamit duñ ko fàtte ah, du maa ngi di nuyu fàllu ñaar depuis mhm. Maroc mhm. suma xarit boobu kenn du moom mhm. ma tamit am na ñaar ñoo xam ne ay international di sama ay xarit mu mel ni Saliou Ciss mi nga xam ne actuellement ngi mu ngi regroupement ak équipe nationale maa ngi koy nuyu moom tamit équipe nationale ci wàllu football bi di football fële ca Nancy ak suma xarit Youssou Ndoye nekk ca Espagne di fa basket moom tamit maa ngi koy béggee bu baax a baax baax di nuyu képp ku ñu suivre rek ak foo mën a ne waaye maam Thierno képp kuy jaay fëgg jaay ñoom Ousmane waaye nag rawatina Massamba doomu ndeyu Moodu xarañ loo maa ngi koy bëggee ca marché Colobane mhm. man ngi koy nuyu Abdou Sakho tamit doomu ndeyu Moodu loo mhm. nekk ci fa nga xam ne moom mooy Petersen maa ngi bëggee bu baax a baax a baax waaye kenn du Omar Tawa borom marché asalem taal bi bàyyi ñes boobu <laughs> ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax di leen jox rendez-vous bu ëllëgee incha allah ci beneen journal <laughs>